dañ dugg sama saal ndeyam suuf saa ba yàlla jox yi bàyyi ko jël yaay booy reetaanal moom waaw poussé poussé yàlla di ko yaay wax poussé poussé poussé ajaratu ngoy ajaratu ngoy faal ajaratu ngoy faal léegi mu leer coow la ca teen ba gaayun mbaag la ko mbaag moo coow jërëjëf mbaag jërëjëf ko dama samba faali ko dama samba foo yëndu gën foo fanaan gën intelligent compétence expérience c'est la différence laman ma coro sas ba jëncënde la jaay jaafun ba lan goon a parence ba affaire yi goon a sabalay sa maam de jofi jogoy sa maam Cheikh Abdoulaye sa maam Amadou Wa Seer Ndiaye biran jamee nga ca ngaay kër jëkk bay lala faal may si bëgg Kumba Faal mi nu boola fa raxat ci ñeer ndéem foo yëndu gën foo fanaan gën namu ma dara jéeg du ko la koy waxal yow loo namu loo namu loo namu loo namu dara dara dara namul dara Ngoy namul dara namul dara. namul dara Grand Dame Bandit. Grand Dame Bandit. Grand Dame Bandit. Grand Dame Bandit. Grand Dame Bandit. Ngoy ngoy ngoy ngoy ngoy ngoy ngoy. Ade ma ngay noon. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf Karim Samb jël ko jël ko jërëjëf Xaadim Samb ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa di ñaan yàlla bés bii ñu doon xaar boobu ba léegi fii ci kër ajaratu Ngoy Faal ci Mamel suñu borom def ñu fekke ko tey yàlla nañ ko eggal ak alhamdulilahi rabbil alamin waaye nag macha allah dafa am xale bu baax boo xam ne dafa ne ci réew mi dëkk ci senegal li ma naan réew mi ñaara fi ne ki wax ba bokk ak ki jëf ba bokk te ki ma bëgg a jëm ci moom daa jëf ba bokk ci réew mi réew mi kenn doon ko fi présenté muy xale bu baax bu am yar bu xam li muy def nee naa ko nag yaa ngi jëflante koo xam ni moom boo bëggee seen digganteek moom yàgg da ngay am yar amuk taalibe te loolu moom laa gis ci moom mooy kan mooy Baye Modou Kane Baye Modou Kane mi ñu naan Masata ma Maseer Ndaak moo yónnee ci ajaratu Ngoy Fall ndax ajaratu ngoy képp ku baax ci réew mi te bëgg lu baax bëgg ngaa duggalante ak moom looloo waral Baye moodu ni moom day bésu ajaratu ngoy faal bii lépp lu mu ci mën dina ko def day ñëw boole koog nag bu sañoon ajaratu ngoy lu muy sol ci bés bi rek moom Baye Modou ci loxoom lay jóge mu ñaw ko jox ajaratu ngoy waaye ku ne xam na ne ajaratu ngoy ndaw lu guddi la da ngay làmb daj sa làmb daj moo tax moom mu ni day ñëw ànd ak buuse mi nga xamante ni bëggul gëmul ku dul ajaratu ngoy faal léppam ajaratu ngoy faal la buuse bàyyi na ñëpp jàpp ajaratu ngoy faal ndax nag macha allah li ko jar rek moo ko jar loolu nag moo ko jaral buuse moo tax moo du kan ñëw fekk si ajaratu ngoy faal une grande dame li ma ne ko bërki dem avion yi wàcc nanu ñoo demoon aéroport bërki dem jëri gan ñu ñëw bi ñu ñëwee ba yegsi ni ko ajaratu ngoy ñun yow la ñuy wër yow lañ bëgg a jëflanteel yow lañ bëgg a xamanteel boole ko def ay teraanga li ko may loolu nag mooy fonk ay waajuram bëgg borom këram Aïssatou Ngoye ay waxam yëpp day commencé ci borom këram jeexee ci borom këram doon taalibeb Serigne Touba gëm Serigne Abdou Lahad bëgg Seydouna Mouhamed ba koy defal bés Baye Modou Kane Aïssatou Ngoye Baye Modou sa rak sa frère sa lépp moo ñëw ci yow di téer bu mag bi nga xamante ni ñëpp koy wër waaye moom tani man Aïssatou Ngoye Fall laay wër Baye Modou ñëpp koy wër mu ni man ajaratu ngoy faal laay wër te day tàntal Seydunaa Muhammad te sama yaay ji nag Baye Modou nee ajaratu ngoy faal lu mu solo gën lu mu solul de <laughs> réew mi ñu ne ajaratu ngoy faal sol la sama mbubb ah. loolu signature la bu dootu denc ci àdduna ñu mu solul seen mbubb sax ñu jël mbubb yi naan moo naan ajaratu ngoy faal moo nu ko solal moo tax Baye Modou kan <laughs> ñaw ñaw bu rafet jënd tissu bu seer ñaw ko jël ci temps am nag ndax xam na ne ndaanaan lay ñawal xam na ne ki ñawal yàgg naa dégg daal yi xam na ni ki muy ñawal yàgg naa sol bu mu baax yàgg naa sol bu mu riis bàyyi mu ni kon ajaratu ngoy fall dama koo bëgg a ñawal bu mu rafet moo xam ni macha allah bu ko solee réew mépp xam ni lii ajaratu ngoy fall sol yàgg naa sol lu rafet lool lu mës a sol rafet na waaye li mu sol nii tey bàyyi moodu kan moo ko jël fasante ko ak ajaratu ngoy fall coloré Baye Modou moo ñaw ñaw ba mu rafet mu ñëw fasante ko ak ajaratu ngoy faal coloré di ñaan yàlla nag sa digganteeg moom na am commencement waaye bu am fu muy yem Baye Modou ne à partir de tey bëgg na lépp loo solati rek macha allah mu jóge ci loxoom Baye Modou ne bëgg na loo xewleeti bu ñaweeree téeméer moom mu ñëw ci quarante laaju la xaalis laaju la dara moom day sol di kontaan sa xool di neex moom muy bëgg loolu rek moo tax a jóg Baye Modou Kane moo tax mu indi cadeau bu bii indi la ko ajalatu ngoy faa ci bés bu rëy bii cadeau baa ngi nii nee nag ci turu Ketchup mi nga xamante ni di frère am di deraat di léppam di léppam nee gis na ngoy ni mu ko def ne bëgg na ngoy bëgg na ngoy te gisu ko rawatina Ketchup ndax Ketchup dafa taxaw ni ko ne eh, ma ngoy kii yëpp lu mu tuddati organisation yi lépp sama sama tur la ko tax maay invité nit ñi ku ma woo mooy yow yaay ñëw lépp ngoy man la donc Ketchup sama frère la boo xamante ni moom laa wax deret moo ñu boole bëgg na ma te yàlla tax jàpp na ma te yàlla tax lu mu sol man la lu soxnaam sol man la àdduna yëpp la may boolee ba lu mu dugg man dama ci duggal sama loxo bi ma ko waxee laa laa ko ni li may def yëpp bàyyi naa ko at mi lu mu fi ñëwaat ngoy la incha allahu rabbi kontaan naa jërëjëf yal na ko yàlla baal bàyyi ak kiyaa borom këram ak kiyaa borom këram mu ko baax la mu ngi koy jàppale jigéen ku ko defal yàlla nga defal jigéen ku ko defal alxuraan nga defal jigéen ku ko teral lépp nga teral yal na ko yàlla yal yàlla may li ñu bëgg yëpp daal ci am yàlla yeggal ak seen sago vraiment social bi muy def lépp maa ngi koy dégg Ngoye di jàppale def ci àdduna bi këccëg ñëw di ma ko xam nu mu toll nit ku baax la référence la li muy def xool leen ci ne vraiment j'ai pas les mots kontaan naa ci moom yal na yàlla yeggale lépp ah. guddi gi neex na affaire yu bëri na gis fii ah, allah yàlla yàlla yàlla yàlla yeggale moo tali lépp jërëjëf joxoon ñu xool tey euh, lan la euh, ki nga xam ne moo di Adja Ngoye Fall euh, réservel ñi nga xam ne moom moo di ay am di jàmmem ay soppeem ay nitam waaye itamit ay mbokki borom këram ak i ay famem dañuy daal ñëw rek dugg ci bâche bi dèjà xool li fa nekk doog a dem ci traiteur yéen a ngi ci jàmm. mais sëñ bi nuyu naa la. xëy naa la bu baax lan ngeen nekk di def nii. non di def def def fii. waaw di defar bagage yi. waaw gis nga. waaw gis nañu ne tey lépp loo xalaat rek ñu ko fi daal di seen. waaw loolu la. wala bés bee ko waral. waaw. mais li ngeen di capp nii di ko dugal ci pom yi pour lan la. ah pour mu taxaw la. Ah, pour mu taw. Ah, mu bañ daanu. waaw ah, mu ngi noonu yéen a ko déggandoo nee na lii ñuy daaj pour pomme yi bañ a daanu waaye ba tey eh, gis naa xaal bi ñu def ci bon gàmm. bon gàmmu moo ngi noonu tonton Medoune macha allah gis nañ décoration bi rafet na mais lépp di fàttali mbokk internet yi rek ki nga xam ne moom moo di borom dibiteri Uba di Uba Camara moom moo fi daal di jaar euh, tout ce qui est traiteur rek tey lekk boo leen gis rek que ça soit dibi muy méchoui ak leneen lu mën ci demee rek moom moo fi daal di jaar donc dibiteri Uba ñoo géré tey service bi. bi nga xam ne nag Adja Ngoye Fall tey mooy gàmmu gi ñoom la daal di taamu mu taamu nag ñu wóor muy sama mag sama xarit di Uba Camara ah, di sama ex patron <laughs> di nit ku baax d'accord euh, gis nañu rayon bi ma chérie nuyu naa la. fay nañu xam lan nga nekk di defar ni dañoo nekk di dressé. actuellement pour service libre bi. waay waaw mais ananas bi ni ngeen koy def nii ñaaw na. <laughs> yërëm leen ko waay. dañuy defar ba mu baax. defar ba mu baax. daal gàmmuwaat bi dara dara du yomb. Ah, kon neex na ay cobot ñu bàyyi leen ngeen liggéey. waaw rafet na. merci beaucoup. Ah, mu ngi noonu gis ngeen ñoom it ñu ngi daal di defar ñoom ananas ñoom xeet googu gis nga yi nga xam ne nag. ñoom lañ fii daal di def mu ngi noonu hamburger yi ndaw yaa ngi ni xam naa ne sama mbokku séeréer yi tey nag ko kontaan surtout Dioufène yi xam nga ñun ngomee ne duñ lekk mais ñu sant Diouf ne nii moom kontaan nañu